chance bi ci dañ koy dénk Ada Fass bu doon teg ci balance bi dañ naan ah Ada Fass de bu bañee yëpp Zoss dañ naan Ada Fass 70 pour cent de victoire Zoss 30 waaye nag bukki naka la Zoss bukki bukki la dem ah. na am na expérience am na vécu Ada Fass am jeunesse am xadar waaye nag ñaar yooyu boo leen boolee toujours rek jum de mën ci gàttal rek Ada Fass mën na ñëw taxañ Zoss dóor gi suuf loolu mooy yoonu la lu jóg la waaye nag zos mën na ñëw indi pexe mag ndax ko juumloo ko mu jooy dem këram donc ñu xam ne rek ñaari mbër yi bëre ay génération yi mu mutu lañu mais que ne mën na daan sa morom waaye nag change bi ñëpp nag day balancé wu jëm ci Ada xamee moom Ada Fass naka lay organisé pour bëreeg zos bu mu ko teg ci ay galaaj bu mu ko teg ci ay takk téere dul jeex na ko teg ci maa gën a maa gën a frais maa ëpp condition maa mën maa ëpp doole ni ko xëy di waxee la war a indi ci làmb ji ak ak ak ak dal jël victoire am gentiment ñibbi pour defaru ndax jafe mu jóge waat Zoss nag da ngay booy xool ndaanaan mu daan naan ah kii kat bu demee dee jaar sàkk booy bi donc nag soo combat boo xamante ne kenn mënu ci prévoir lu bari daal ah que le meilleur gagne ñoom ñaar. maa ngi lay maa ngi jaajëfal. merci beaucoup. kontaan macha allah